ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi euh, dañu déplacé wa ah. ñoo ba fii ci euh, marché Petersen plus précisément euh, marché Sandaga mën naa ne mais ñoo ngi Petersen ñëw seet si un champion un champion bu gaaw pétri de talent maanaam mbir mu xarañ mën li muy def moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séq moom waxtaan en l'occurrence maa ngi toog ak Mbine Gueye mbin géej ku ko dégg xam ne tur bi turu séeréer la kon kii seexal séeréer mbapatkat la mi ngi ci aram bi di xàll yoonam di avancé moom lañ ñëw seet si tey wër nuy naa waaw Seydina ñu ngi ci loolee waaw ñu santee la bu baax rek la koy tey ñett dara comme toujours waaw happiness fu ñu la fekk yaa ngi foo di taf di ne lu demee noonu comme d'habitude mais booy mbër nañ ñaa ngi tuuti amul solo mën nga xam ne foo ko fekk muy happiness quoi noonu la am na amul solo fii mu ngi doole xol yi rek bu def doole dem mais avant tout ñu sant la bu baax a baax sant suñu ñaari waa bu baax a baax man maa ngi ñu sant sant sama jaay ñu nekk fii Salman Pao Marie Aziz di sant tamit sama grand grand bi grand Ndiaye. grand Ndiaye place am bi waaw. ñu koy sant bu baax di ko gërëm. waaw kenn la ci man quoi. ñu sant ñu sant day jàpp ci combat rek. waaw da ciy jàpp bu baax a baax a baax. waaw di sant tamit waa Ngoundiane bu baax xaw ma seen bopp. Medina tout. maa Medina. waaw maa Medina say say mbokk mi ngi fa. waaw sama lépp a ngi fa. Euh, benn instant damay ñëw ci làmb ji dama naan Geita euh, tur bi dafa original bin bin Géej am na gars yu bëri yoo xam ne mënuñu mënuñu ko wax mënuñu wax tur bi mais dañuy des fois ñu woo ma ne ma sama poulain bi bin ngay lay gërëm bin ngay bin Géej la tur bi mu jógee ak lan la signifie tur yi ñu jógee mooy fen rek sama benn gars yi moo ko doon wéy sama benn gars moo ko doon wéy muy def lu xarañ neex ma lool mu nekk sama grand nekk sama mag nekk sama lépp waaw ci laa jëlee tur bi xam nga ban nii sa mag moo daan moo daan wóoroon liñ géej kooku fu mu nekk kooku mbër la woon waaw daa bàyyi bëri sama fan la fan la daan bëri la ne tournoi yi yëpp da cee toj yu bëri. ok grand au grand. d'accord mais jotul bëri arène. yow nga ñëw bëri mbapat ba noppi dugg ci arène bi. parce que les doonante gars yi. Eh, déjà sa histoire ak lamb fan la tàmbalee déjà lan moo la boole ak bëri da nga am ndox muy bëri wala da nga gis sa grand di bëri nga ni mu demee lamb bi fan. non comme ni ma la waxee rek foofu la commencé ndax dañoo nekk ay booy yu ndaw di ànd ak suñu gars yi di leen toogal ay cumukaay xam nga lamb daal di gis ñu gën a def lu jéggi lu jéggi dayoo dajale ay drapeau xam nga suñu daanoo dañuy mere mais buñ jëlee drapeau dañuy kontaan xam nga virus bi daal foofu la ñu tuddee quoi commencé di ko paquet bi gis ñu ay vital yeeg xam nga ba virus bi commencé ba ñu génn ay saako ceeb xam nga ay meew vital yi war na yàlla commencé bëri moom laa commencé bëri de war na yàlla moom laa commencé bëri ngay génn ngay génn ay saako ceeb yàlla da ci def ci wol dañuy commencé di gën a nag dem nga ba gagné ay mbéy. ah boo dem nëbb sa boobu ma ma ko mais loolu la rek li ñu xam rek bu ñu nañ si loolu la ndax mbër moom saa yi toog di xaar moom war a gën mbër man ñaar laa la xamee liggéey mbër ma laaj kan mooy mbi dama naan liggéey kat la mbër la bi la li laa la ko man moom lam bi mu tiggee maay marché bi waaw bu ubbee waaye si àll bi euh, mbër mi kon dag maa nëbb sa bopp parce que man jàppoon naa ni xam naa la mais ndeke dugg nga ci àll bi bëri ay tournoi jël ay saaku ceeb ba jël ay nag man loolu xaw ma ko woon waaw noonu demee xam nga rek lamb moom boo si nee moom da ngay def ñaari yoon yi waaw farab bi ñu dogal nga dem ci suñu waaw te noonu la demee quoi ñun suñu amul combat tamit nañ si dèjà bi ngay gën a nekk xale dèjà fan nga daan bokkutee dèjà. maanaam nga bokkutee wala dëgg ma gënee nag boobu dugguma taawoon sax boobu maa ngi dëkk. ok di bëree ay saako ceeb ak yooyu noonu xam nga. Uh-huh. foofu lañ commencé. foofu nga commencé bëri mais euh, est ce que mën nga ma dellu si ci tournoi yi nga jël. tournoi yi ma jël. ñaata tournoi nga jël déjà. non xaw ma ñaata la ma essayé moom. bari na mais mais lan nga jël ay saako ceeb nga jël ak lan. xaalis xaalis. ay nag nag. waaw ah, yooyu nag yi fan fan biir Sokone. Sokone. Sokone bëri ah. nga fa tournoi. côté Fissel. Fissel Mbadane. bëri nga fa tournoi. bëri naa fa tournoi suñu dëkk. sa sa dëkk. Eh, ah. fan ci Ngunjaan nga dëkk. biir dëkk mu. Mburuwaay nga dëkk. foofu aussi teg nañ fa tournoi nga bëree daan ñëpp ah, jël ko. ñu dul non non non non loolu beneen affaire là mais euh, beneen sens séeréer jàmm tukk loolu am na ci ñoo xamné ne mbapat lañ mën mais bu déssé dóorante rek dañuy fente dañuy daw arène bi mais yow da nga ñëw town ñu fi ci medina n'est-ce pas bu ci arène bi commencé di dóorante sa premier combat arène sa diggante kan daa bu Texas. daa bu Texas. daa bu Texas bu bu bu écrit euh, bu écrit Texas. moom nga njëkk a bëree. moom laa a bëree. bu métti. ma ne ko maman yoo xamante ne ñu teg suñu teg waaw daf ma ñu teg nga raafale. lu ñu teg ma raafale ma ñëw indi xelu booy quoi kii maa ko man dama koy jot daanaka. <laughs> arbitre fu ma dama koy dàq koñ ba koñ. boobu moom tey mi ngi jóge ci mer. parce que boobu tamit yooyu la ko kii daanee instant rouge. te koñ ba koñ laa koy dàq am na ñaari avertissement xam nga rek man avertissement boobaa sax defuma ko loolu laa war a daane am na ñaari avertissement ñu dem pause ñëwaat maa ko jàppee forcé ko noonu ci laa tourné rek ci la def rotation sama action la def rotation ma tourné parce que ci ginnaaw saako laa def rotation. ci ginnaaw saako yi. arbitre bi suuf la woon na pour ñu. mais xam nga du question saltel sa combat boobu noonu na ne moom bu fekkee bëri bëri rek loolu am ci man salaamaaleykum. daa bu teg des. barki man si attention man ne du ma daanu xam naa ne lu may daanu si amay dégg ndax man fu la fayda laay def si may daan di nga liggéey lu métti di nga liggéey lu ne ndar ñëw daaw. mais da nga ñàkk sa diggante ak Daabu Texas. sa premier combat dans l'arène dama kaa ñàkk mu métti ma lool mais sant yàlla day defar ci ñëwaat nga jóge ci ñëwaat daan koo koo koo bëreel après kii waaye am booy ñaan ñu doon su jëm sama xel jël na ci adversaire bi ko deuxième ñu tuddati nga ni sama xel génn na ci mais sa deuxième combat mais boobu da nga ñëw daan. boobu dama ñëw daan bu dul la woon stadium. Euh, stadium stadium Iba Mar ah. nga bëree daan jël bu rëy. nga euh, rectifié défaite bi. waaw rectifié noonu la ma doon demee nga woon ci porteur yi ne lii erreur la Jos doo lañ ma jox. Jos Jos numéro 2. Jos doo lañ ma dafa am gars ñu ne nañ changé adversaire bi te xam naa dafa daw. dafa daw avance bi. ñu demaat ñu joxaat ma kooku noonu xam nga lan laa mujjee sama ménage ba ma xam ne dootuma dem di gis benn mbër ndax ku ma gis yi day daw avance bi rek mooy mooy bëre. bëre rek wóor na yàlla am. problème mu adversaire. yéen ma jox yéen saa ne nit woo ma allo ma jox mu daw. yéen saa nit woo ma a ma ba ñaar. war na yàlla te loolu war a ne a na yàlla mbër bëre. xam nga moo tax des fois dañuy fàq ci aw bi jéem a wuti li ñu am dañu ma li ma allo xam nga kan mooy Mbine Gueye. waaw gis nga man leen Mbine Gueye. nii ma loo xam ci waajo moom moom lañ bëgg a jox sama poulain bi. wax li ma ci ma nit nangu na entraînement mën na bëre par ci et par là ba xam man maa yàq ko maay wala demee gars yi de man ma laaj li ma xam laay wax ah moom xam ne bu ñu la gisee Ibou Mar yi rek ngay jëflante ak gars surtout peut être peut être peut être aussi sama classe bi ñuy yàq combat yi man ku laaj li ah, ma xam laaj ki yéen ba ci kaw dóor ci wax. ma am boo xool fi mu ne nii nii si ñu war a bëri ñu ñuy raw ci xam adversaire xam nga ma la. dëgg yàlla te fi mu ne nii lamb léegi waaw te loolu baaxul mbër mu ndaw war naa mën a am ba trois combats par saison. deux trois combats